nañu tey en pleine émission gars nit jógee fenn ah, ah, ko gisandoo dama wax lu ma <laughs> warul wax peut-être ñu jël ma laaj ma ma tontu ñu bàyyi ma ah ñoo ngi xaw ma leen ah ñu rek ñu ne ma yéen ko bindaat kay yéen war ngeen leen xam yóbbu nañ ma <laughs> yóbbu nañ ma de. xaw ma sax man fàttali naa sax li ma man nag mu wàcc liggéey bi dugg sama kër sama kër lay fàttali ko damay fàttali liggéey bi quoi <laughs> na Sénégal da ngeen ay nit yéen. <laughs> dañoo takkal ay lam ah du gis ngeen ko ñu takkal ma ay lam mooy loolu non non wax naa ñu tontu ma man waxaat ñu wax ma après ñu wax ma wax man tam ma wax ñoom ñu wax après wax ji am quoi après wax ji am. wax nañ ñoom wax nañ de xanaa ngeen dem laaj leen ñoom mais man li ma wax wax naa ñoom la ñoom <laughs> non cameraman bi gën a garaaw <laughs>